société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di may de presse dali jàmm ñu ànd xëy yër yéen a kaay ñu xëyandoo yéen a kaay gi di Le Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu coalition Yewwi Askan Wi ñoom Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias Khalifa Ababacar Sall ñoom njort nañu ne élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ñoom dañu koy gagné ndax nee nañu bu ñu amee majorité wax nañu ñeent loi yi nga xam ne moom la njëkk signé Ousmane na bu ñu gagné Assemblée nationale dinañu taxawal ab commission d'enquête parlementaire boo xam nga xam xam ne dugal nañ ndax ñii ay sàcc lañu kàddu Ousmane Sonko la yéen a kaay gi de la Tribune Boubacar Camara nee bu amee ci élection législative yi bu mu leen bett lii nga xamante ni moom laa gis gis naa ne cohabitation lu mën nekk la yéen a kaay la sa élection législative yi Serigne Boupa maire bu Kaolack moom dafa neutre ci élection yi nee na faralul opposition bi faralul parti au pouvoir yéen a kaay gi di Direct News coalition wàllu man Sonko nee na réew mii di Sénégal Macky du nuwu ko ci baayam du nuwu ko ci yaayam te nag Macky Sall demul ca marché ba jënd Sénégal ni nga xam ne moom la Abdou Diouf doxalee Abdoulaye Wade ko ci élégance Macky Sall la war a def te bu ko deful danañu ko fekk palais daal di koy délogé yéene kaay gi di Sud Quotidien nee na campagne bi ñoo ngi ci dernier virage bi yéene kaay gi la sa nee ci diwaanu Kaffrine Aminata Touré mi nga xam ne mooy teddali si benn bokk yaakaar ma nga fa woona waaye nag mbooloo mu ne mooy Aminata Touré Abdoulaye mooy maire bu Kaffrine amu fi yéen kaay gi di la mandat xëy duñu xibaar naan ñu Souleymane Ndiaye mi nga xam ne mooy directeur infrastructure aéroportuaire mbooloo mu baree bari moom la génne bi Aminata Touré di ñëw fi nga xam ne maanaam mooy Goudomp ñi nga xam ne ñuy waa Benno Bokk Yaakaar ñoom Souleymane Ndiaye ca diwaanu Goudomp jamono ji ñoo ngi xalaat lu toll ci 99 pour cent ngir Benno Bokk Yaakaar ci élection la yi Souleymane Ndiaye nee na xawma fan la combat am waaye nag fii si Goudomp gi di la sa nee na Ousmane Sonko ñi nga xam ne ñoom la àndal ñoom tim ñoo nga woon ca diwaanu Jolof waaye nag mbooloo mu baree bari ñoo génn daal leen di topp naam doon na taw taw bu baree bari la doon taw fi nga xam ne mooy Linguère ca Daara Jolof waaye nag teewul mbooloo mu baree bari ñoo génn daal di tertu coalition Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko nee na Macky Sall cuuna la xamul mënu la yéen kaay gi di li quotidien bàyyi mbir moomee wax ci lu jëm ci napp gu yoon gi nga xam ne moom la ñu gis ci biir réewum Sénégal ñi nga xam ne ñooy autorités yi ak agent de port yi ñooñu la ñu joxar bi baaraamu tuuma yéen kaay gi du l'Observateur nee na lu jëm ci faatug Idrissa Goudiaby bi procureur bi nee na nañu def benn autopsie maanaam troisième autopsie yéen kaay gi nee na li ko waral bi ñu njëkkee defa autopsie dañoo waxoon ne Idrissa Goudiaby balu fetal rëyu ko bi ñu defee beneen autopsie gars yi gis na balu fetal moo ko rey loolee moo tax procureur ne mbir mi mënuñu ko bàyyee noonee mu sedd te dinañu déglu ñi nga xam ne ñooy médecin yi def autopsie bi ak experts yi dinañu leen déglu yéen a kaay di source nee li nga xam ne moo jaaxal gars yi mooy ordre des médecins noppi gi nga xam ne noppi nañ ñu ko laajee mi yéen a